ju commune rurale de Mewane tey noo dund bis bi chef chef de village bu Mewane rek ma fa la communauté la communauté de Mewane waaw bis bi dañ ñu ngi koy rafetlu wax dëgg yàlla nit ñi teewaay nañ seen teewaay rafet na jullikaay bi wax dëgg yàlla góor ak jigéen mag ndaw ñëpp teew si nañu ah devant le sous préfet mhm. ak le chef de village ak imam mhm. ñëpp ñëw nañu daal wax dëgg yàlla ñëpp daal kontaan nañu ah man daal su ma su ma jàppee ne kon daal tey daal fet gi moom euh, ala ala daw mel na quoi par rapport ak euh, imam nu mu doxalee quoi. ci jàkka waaw ndax xam nga imam guddalul xutba bi. Mhm. ah comme ni mu ko daf ko tënk rek. Mhm. ndax bëgg a teel a nit ñi ndax xam nga bis bi dafa xat. Mhm. moo tax mu daal di bëgg a teel a nit ñi rek ñu daal di dubli ci beneen liggéey bi. waaye vraiment. Euh, yëf yi mbir mbir daal tegu na ci yoon macha allah. ok da après nag gis naa la ngay jëm ci euh, cimetière yi ci ci jenn sa yi. Mm. après xam naa da ngeen doon dem foofu pour euh, def pour def ay ñaan xam naa yooyu noonu ngeen ko doon def. waaw kooku moom. Mm-hmm. dañoo am habitude ñaare. Mm-hmm. saa bu ñu jullee muy tabaski muy muy korite mm-hmm. ndax sama góor gu baax ga El Hadj Sangono Diop. moo mos a digal ne ma. Mhm. ba ma fàttalikoo ba tey. Mhm. amul benn bisu euh, éet. Mhm. maanaam korite wala tabaski. ñu julli ko parce que déwuma. ñaanal sunu way dawlee ca euh, sëgee. ne képp koy def nag yàlla dina guddal soo fan yokk sa barke. moo tax ku ko man rek. boo ko defee rek def ko soog a soog dem dem fooy dem. dëgg la loolu rafet na sa kàddu gu mujj nag après ñu tëj ko. xanaa di gërëm euh, rajo bi ak télévision bi nga xam moom la ñu fi indi nii. pour di ñu jël. Mhm. di ñaan fan gudd ak wér ak salaam. ok merci beaucoup.